ci may yàlla yu kawe yi allah lii de ku ñu ko kon ñu ko gëm sax Cheikh Chérif ku ñu ko waxoon duñ ko gëm ku ne dañ daan dégg baatu aarifina billaahi rek bu ñu waxee luy aarifina billaahi ñu ne aarifina billaahi mooy ñi xam yàlla léegi nag ñuy ñuy xalaat suñ gisee buñ deesi ne ba fàttali jamonoy benn la den mu jàkkalee gars yi xam nga dañ ko daan deesi si t-shirt yi quoi dindi si aarif aarifina billaahi <laughs> ñu ko aarifina billaahi nu mu war a mel <laughs> ndeysaan tabaaraka allaahu euh, yàlla xam na ko ñu ne luy aarif ñu ne aarif ñi xam yàlla ñu ñuy arif ñu ne aarif mooy ñi nga xam ne ñooy dund tasawuf mooy borom sikkim yu gudd yi ñi nga xam ne dañoo dëdd woon àdduna bàyyi lekk bàyyi naan nekk ci gorot yi di yalwaan aarif dal moy ñi nga xamne ne ñoo egg sës rek ci yàlla gis nga ñun buñ doon buñ doon xalaat buñ masaan di xalaat arif ni billahi ñu ne diw arif la di bu njëkk ba pour ñun duñ ay nit sax alhamdullilah rabbil alamin alhamdullilah rabbil alamin ndekate dara jógu fi li seyna Ali no xon waji lan mooy aarifina billaahi mu ne ko kaa ilu baa ilu mu ne ko luy loolu mu ne ko mi ngi woon toog fii jóge na fi léegi moo ko lan mooy loolu mu ne ko nit rek nekk nit la comme yow de <laughs> nit la comme yow am bopp am ñaari euh, euh, paxu nopp am bakk ñaari bët am bakken gémmañ ñaari loxo ñaari tànk bopp bi nekk ci diggante mooy lool mooy aarif nit la woon rek fi la toogoon léegi kon ndekete yoo lañu foogoon démb ne jeex na Cheikh Amadou bàmba dëggal nañu nee nañu bu leen jël ngëneel jox ñi fi jiitu bàyyi ñooñu tey ba nga ko defee da ngeen di pat moo tax jotaay yu mel nii bu toogee ñu ñu di wax ci xam yàlla ci tasawuf ñu bari bu ñu xoolee jëmm si wala njëmm yi ak li ñuy wax dañ ne néedéet ndax gis ñu sikki mi gudd gis ñu gorat yi melo yañ doon dégg wala yañ doon yaakaar ci aarif wallaahi mooy yéeme ndekete yoo wa fi laaxiraatu xayrul ak minal luulaa tey sax la gën a doy waar sëriñ Tuubaa nee na bul jël ngëneel mukk jox ko ñu njëkk ña bàyyi ñu tey ñi soo ko defee ma da ngay pat da ngay borñ borñ may pat mel nam xel lan mooy aarif aarif mooy ñi ñi nga xam ne am na ko wax sànq nee na yonent sëñ doy maa ngi koy déglu si mu ne yonent jeex na dootul ñëwati mu ne yonent jeex na dootul ñëwati. ah kay julli beneen dootul ñëwati ci yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa la wàcc koor dootul ñëwati ci yonent yàlla Mamadu la wàcc beneen ak màkka dootul ñëwati ci yonent yàlla Mamadu la wàcc asaka dootul ñëwati bii moom la amul beneen waaye lañ ko yónni nag fukki at ak ñett te julli gi wàccut woor gi wàccul nati mburum koor gi wàccul loolu lañ wax ne al ulamaay wa astulul wa arastul anbiyaa boroom xam-xam yi ñooy doon yonent yi doon data ko baatu yonent nag waaye ñooñu ñooy aarifina billaahi gisoo ñooñu ñooy aarifine billaahi yonent dootul dikk julli de كان مول لا اندلات بنين وور نونو ناتو مبروم كور نونو بنك بي لا نيو جوبلو كولا انديل بنين جيخنا واي يانتي الله محمد صلى الله عليه وسلم واتنا 13 جولي غول وارو غول تكن نوكو ييفر نيما اندالون ген نانيو ادونا خديجه نيو دنت كو سول كو تفك وول جولي ناخ نيو بري مكه لا نيو ген ادونا تكن نوكو لين اي ييفر ام دير te boobu julli wàccagul woor wàccagul natt mburum koor wàccagul génn mbay mi asaka wàccagul treize ans moom li mu julli barawul di bu dee yonent be ngay roy bu dee yonent bi nga roy <laughs> ibaadu yi bu dee yonent bi lañ roy nañu bàyyi ba am cinquante trois ans julli boo amee cinquante trois ans yonent bi am quarante ans la dañ ko yónni quarante ans mu woote treize ans muy cinquante trois ans si la julli so si la reñaa nañ jox ko julli kon boy da ngay roy dëggantaan yow ray lol da ngay bàyyi am 53 ans nga so julli wala nga ne yonent bi ñaar at la julli ñaar at la am sax moom mi gañ 63 ans wala 60 ah 63 ans nak nak calculer at yi mu desee nga julli lol tok boy da ngay rey do lol nak gaa ñu ko rey mais yow bi nga amee 18 ans nga julli ba naka da ngay am euh jarul ñuy xébanté jataay yu mel nii. boo leen ko gisatee jataay bu ñu wax laa la illallah yéen waa Grand Yoff ak saa ndeysaan fa tabarakallah jataay yoo xam ne ay xale ñooy ñëw di wax baatu laa la illallah sikkarullaahi di waxtaan bàyyi leen leen xel bu leen wax ne ñii dey mënuñoo xam li mag ñi xamoon wala lii mënuñoo am li mag ñi amoon wala ñii li ñu wax dëgg ndéem laa ilaaha illallaa la ñu wax laa ilaaha illallaa te njëkk ñi moom la woote woon arfan bi arfin yow toogal nga bàyyi xel doo am lay ëllëg de doo am lay de doo am lay de doo am lay ëllëg danga naan ah ñoom de Cheikh Lamine Sène ak nu mu tëddee sax Mamadou ak Seyni ak Cheikh Ibrahima ak Baye Baraka ak ñooñu la doon bon ñu wax laa la laa di wax rek xaw ma lu ñuy wax ñoo ndax teewlu nga li ñuy wax xanaa yow nodd gi nga nodd sa biir jàkka yooyu nga taxaw nodd te da bëgg nit ñi wuy si la te bu ñëwee nga naan xayaalal salaa xayaalal falaa بالله والله وتعالى خي على الصلاة خي على الفلاة في لنا في في نتوق ني في لا في نتوق نقول فلا دك دي في في جلجي في لا خي على خي على الصلاة ما يلا ها خي على انتي على الصلاة خي على الفلاة ñëw leen ci julli gi ñëw leen ci xéwal yi ñëw leen ci koom gi ban koom nga jógee jàkka ja dana bon dana inaal dana soxor ana koom gi ana xéwal yi ñëw leen ci xéwal yi ñëw leen ci koom gi wallahi nga romb jotaay bi ñu wax laa ilaha illallah ah te yow gis nga fii foofu nga doon ñu ne la bilaal nga yuuxu ne ñëpp ñëw du woon noonu de yonent bi muy woote laa ilaha illallah naan man xaala laa ilaha illallah tuflihu wax leen laa ilaha illallah képp ko wax laa ilaha illallah mucc nga boobu bilaal doogu ci diina gi jàkk amagut yii yii yii yàngut fa tabarakallahu nag wax bu eggul ayul dañuy laante biir rek pour wax pour wal la ne Cheikh Chérif jaam yi dañu war a dañu war a euh, bañ a xeeb bañ xeebante bañ a xeebante xam nga bañ a xeebante mooy euh, boo déggee nga ne jullit nga benn waaye di wax laa ilaaha illallaah laa ilaaha illallaah laa ilaaha illallaah nga koy dégg mu koy wax tànta laa ilaaha illallaah ngay jullit nga ne lu baax nga bëgg jàkk ji woote nga dem kii woote ñëwoo wala nga xeeb ko naa fekk nga da nekk naa fekk parce que yow wuyu sil boo ko deful ëllëg yow mën a amoo lay amoo lay amoo lay nag dañ la wax yow xanaa déggoo woon Cheikh Lamine Sène nga ne Lamine Sène Sène man ñu ne la Sène moomu ah doon naa ko Sène kay ñu ne yow Sène la nga amoon ci moom lu mu la doon wax nga laay dégg ko muy wax waaw doon la wax de waaye li mu wax de moom moo la kooku kat aarif aarifina billaahi nga ne aarifina billaahi man kooku doon jaay ay bouton ci marché bi xanaa da ngaa fàtte Imam Ghazali xanaa da fàtte al dabaax yu uude la woon xawsul waraa mais uude uude c'est forge uude la woon uude cordonnier al da baax yu gisoo ko nare Lamine Sène mii laa doon romb de moo la xanaa nekkul woon nit puusal nii tuuti puusal nii tuuti maa bëgg a jàkkaarloo baax mu ne xanaa nekkul woon nit xanaa amul woon benn bopp xanaa amul woon ñaari nopp xanaa amul woon ñaari ñaari ñaari bët ñaari pako bakkan gémmeñ ñaari loxo ñaari tànk yàlla moo ne nit mooy sama suru te maay suróom man nit mooy sama suru te maay suróom la moo tax dëggal woo ko amoo sumay mbokk maa leen di giñal ci màggug yàlla mbokki Grand Yoff ginnaaw bi ma jëlee siyaaru màgg teg ko ci loxo Cheikh Al Amin Sène mu tësaare ko ci imam bi chef de quartier bi waa koñ bi di bëggee Cheikh Al Amin sa kàddu gi nga yëkkati fii wax dëgg yàlla amul lenn luñ ciy wax macha allah macha allah gudd fan ak wér bàyyi la ay milliards ci mbooloo ay milliards ci koppar ay milliards ci mbooloo ay milliards ci koppar ay milliards ci mbooloo ay milliards ci koppar <clears throat> barki Maulana Cheikhuna Cheikh Al Hassan Diouf kàddu yi rafet na yaa ngi ci yoon wi yàlla bu loolu dara dog ci kaw ci kalam ci kaw ci kalam ci kaw ci kalam xool sedd na kontaan nañ yaa ngi ñi nga àndal bés bi rafet na rafetlu nañ ko tegu na ci yoon alhamdulilahi rabil alamin jërëjëfati kon nag ñaan kon bu leen jël ngeneel mukk jox jiitu bàyyi ñu mujj da di pat xam yàlla jeex na egg ci yàlla jeex na sëriñ Tuubaa rek moo xamoon yàlla Ibrahima Fall wax jox jeex na Limaamu Laay rek moo xamoon yàlla Alaaji Maalik xamoon yàlla loolu njuumte la yàlla doxewul noonu ay mbiram doxewul noonu waa nit ñi ñoom ñoom nit ñi ñoom ñooy ñooy ñoom ñoom ñooy ñan ñoom nit ñi ñoom daal yàlla ne faxaal li man yurit c'est-à-dire que fadlu yuti man yasha wallahu zul fadlu al azim maa moom sama ngëneel fu ko neex la koy def yàlla na ngëneelu ñu ne ñoom ngëneelu yàlla jeex na ngëneelu yàlla de mi ngi yem Touba mu ngi yem Tiwaawan mi ngi yem ci yonent yàlla Mamadou fii la yem jeex na amatul kon ñun fu ñu jëm ah dem nañ ba sax nag léegi xam nga loolu jàll na léegi ñu ne ku juddoowul Touba wala santoo Mbàkke wala santoo Si wala santoo cew wala santoo euh, Ñas yow doo doomu soxna ku sant seen dañ lay séen ne rek waaye toogo fa dañ lay dañ lay séen rek na egsee ko eggoo quoi ah, euh, man du dëgg wéru képp ku sant Mbàkke ku sant si ku saldu caw soo ñëwee ci man am naa sa njariñ ma jariñ la te ku sant si sant Mbàkke sant caw mënoo maa yokku tus billaahi wallaahi wal noo sant koo mën a doon foo mën a dëkk am naa sa njariñ soo ñëwee ma jariñ la loolu la yàlla dogal am déet ah ndaa suñu sëriñ ñu ko wax di ku yàlla bind amal naa la njariñ soo ko jëlsee amal naa la njariñ soo ko jëlsiwul amal naa la njariñ kon nag su may mbokk mbokku Grand Yoff mbokku Sénégal ah na nañu na nañu laante biir seen mbokk mii seen dëkkandoo bii lim leen di woowe ah de ko bàyyi xel donte seeda neen ci yéen ci yéen seeda na ci yéen baax seeda na ci yéen yaatu yaatal ngeen lépp ñëw ngeen waaye loolu doyul loolu doyul li bëggoon mooy ay kilifaam bu ñëwee fii ngeen ñëw taataan xam ne xam-xam puso bu réer la xale mën na ko for mag mën na ko for te tey xam-xam fa mu tegu woon fañ ko yaakaaroon ak lañ ko yaakaare woon fañ ko yaakaare fañ ko yaakaare tey tey tey tey fañ ko yaakaare xalaat nit ñi ñoom waaw ah, nit ñi ñoom da ñoom daal ñoo naan mbaax daal kër bàyyi ñasa kër bàyyi ñasa lekk jeex na xam-xam moo warul nekk si ko sant Guèye wala ko sant Mbodj wala Cissé suñ ko teg dafa am benn xut bu sawaan bu feeñ jamono moo tax coow li bari daal ay mbiram noonu la ñu koy wax Cheikh Moussa Cissé Ndiambe borom daanu moo wax bu rëy damay wane yàlla ak bëti bopp loolu nag moo indi cool fa tabaarakallaahu noonu la tëdde ñu ne nag déedéet xut bu samaan mën ta feeñ fan daaru saalum mu ne aha nag ba day ma nga jure Touba waaye ku naan ci meew mi di nga ñëw Saalum Saalum fii fal la ñu ne ko Saalum mu ne fel la mu ne kur wi bu tawee pare fu ndox mi di jëw ñu ne ko fii mu ne lépp fii lay mujje ñu ne ko si Baay Ñas nga ko jëlee si Baay Ñas nga ko mu ne déedéet jëlewu ma ko si Ibrahima Ñas aw ma benn wasila bu dul Bàmba amoo benn wasila bu dul bamba amoo benn wasila bu dul bamba amoo benn wasila bu dul am wante bés ni ki tey ñu ngi ko wax en soixante-quinze drapeau islam daanu na drapeau islam baa ngi fii Passy mi ngi fii Daaru Kër Momar Khourédia boobu la bàyyi ñes wàcc liggéey ca London mu génn bërët ci néegam ne drapeau islam daanu na drapeau islam daanu ma bàyyi ñes daanu na ca London bàyyi ñes daanu tey drapeau bi ñëw na fii lii mooy coobare saa boroom yàlla lu ko neex mu def nit ñi nag ñooy organiser organiser bopp ku santul Mbàkke dëkkal Tuuba war a am xam-xam ku dëkkul doomu diw doo doomu soxna ku bokkul fii loolu yéen nit ñi seen xalaatu bopp la yéenay xalaat seen xalaatu bopp defee nu mu leen neex mbir yi demewul noonu léegi nag lii waroon ne mbir yi demewul noonu xam mooy lan moo ñu bañ a dawante ndax eh li Cheikh Jibi Sey di wax man naa nangu sa maam gën sama maam sa baay gën sama maam mais sa maam bu jaarul sa yow boo ñëwee jaaroo fa sa maam jaar ma jaar fa jaar maa lay léegi nag sa maam xam aarifina billaahi la woon yow ñoo la xam yàlla nga la xam yàlla amut sa maam nga weddi boo murit sa maam nga weddi boo dee tiijaan weddi nga alaaji Malick boo dee limaamu sëtu limaamu laay weddi nga bàyyi laay ndax ñoom seen li ñu woote du dara lu dul tasawuf xam nga la mooy tasawuf xam nga la ñoom moom la woote xam mooy lan mooy jibril dafa ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam jibril ñëw sukk jël ñaari omam ni siraat miy def ñëw toog sukk ñaari loxo ñaari tànkam ci moom na ko yaa rasulaay ñu ne ñëw na kenn gisu ko ci njeekatu tukki maanaam jibril kenn gisu ko foo xam ne dañ naan jibril mii kii jóge na dëkk bu sori daal bi nga gis mu sol lu weex tàll ñëw ñaari omam sukk ko nii comme ni siraat def ñëw na yonant bi mu ne ko labbayka mooy dama lay laaj นกลไม่รักนกลันมวยลันมวยดีเนี่ยอิสลามลันมวยดีเนี่ยอิสลามอืมที่เลยนกลันมวยดีเนี่ยอิสลามลันมวยอีมานลันมวยอิสานนกลันมวยอีมาน mu wax ko antuminu billahi wala malaikati wala kutubi wa rasulil kiram wala xadri la ji yëjoom bil maram loolu mooy iman juróom benn ponk mu ba maa koo mu ne seede baatub laa ilaha illallah julli juróom woor natt mburum koor dem màkk soo ko manee mu ko lan mooy ihsaan lan mooy ihsaan mu ne ko mooy ngay jaamu yàlla ba mu mel ni yaa ngi koy gis soo ko gisul moom mi ngi lay gis loolu mooy tasawuf loolu mooy tasawuf mooy nga jaamu yàlla ba mu mel ni yaa ngi koy mu ne soo ko gisul yow mi ngi lay gis waa léegi imaan bi nit ñi am nañ ko gëm nañ yàlla nit ñaa ngi julli ñu ngi woor ñetti mburum koor ñu ngi gën may ma aska est-ce que am nañu ixsaan ixsaan mooy liy sellal sa ngëm mooy liy sellal sa jëf ñetti ponk yooyu moo la ku koy amati ku koy amati foo nga am seexul marab bi moo tax jibril bi mu ñëwee dafa ñëw ci yonent bi laaj ko lu yonent wax mu ne ko dëgg la loolu nag moo jaaxal saaba yi bi mu ñëwee dafa sukk ñaari bëtu oomam ba pare sëgg bopp bi nii lu yonent wax mu ne ko dëgg la moo tax lu mel noon nag mooy tasawuuf moom la Sëriñ Tuubaa woote moo tax Cheikh Fall bi ñëwee ànd ak Sëriñ Tuubaa lu Sëriñ Tuubaa mën a dëgg la sukk ñaari tànkam foofu la ko jëlee maa ngi dégg ndeysaan góor gu baax di ko wax lii mooy lii mooy mooy mooy tasawuuf lii moo waral turuux yi foofu la jógee mais da laaj nag da laaj Ibrahima Fall roy de ñëw ñaari tànkam teg ci sëñ tubaa wóomu sëñ tubaa na ko tànk yàlla topp ma bëgg nga wan ma tànk bi wala fu tànk bi génne wala ñu ànd demuri ko rek su may mbokk dañoo dem ba réere mbir yi waaye cosaanu turuux yi mooy murit tiijaan xaadir laayeen mooy lan moy ihsan yang ngi julli yaa ngi woor gëm nga yàlla waaye ngay def ba sa jaamu yalla gi sel yalla man ko nangu ndax yalla jaamu gi bu selul yalla amu ci soxla neena na jëf yëpp li soxla moy def di sel ni ngay def nak ba selal mbir mi loolu moy tasawuf loolu moy iksan, julli nangu nañ ko gëm yàlla nangu lañ ko mais ixsaan foo nga am sëriñ ni ko jibril dafa woon ak yonent bi foo nga laaj ko foo nga déggal ko loolee moo indi turuux yi moo tax ñu ne al ulamaay warasul anbiyaa yi boroom xam-xam yi ñoo donn ñii ñooy ñële rek tur yee wuute rek julli moom di wàccaat woor du wàccaat waaye la mu woote woon treize ans te mu laa raxas xolu jaam yi raxas xolu jaam yi ba mu set bu ñu jullee mu baax mu ñu woor mu baax loolee la nit ñu indi waaye léegi nag ah ñu ne ah nit ñi ñi ñoo bon seen bopp nit soxal seen bopp ñu ne nag léegi moom feebar ku feebar rek jee kenn du faju kenn di wër amul docteur daal amatul moo loolu la ñu wax ku feebar dee amul beneen docteur bu amatul beneen docteur am amatul docteur yi wàccatuñ ñi raxas ko lu jaam yi wàccatul ah ñi xamoon yàlla jeex na Cheikh Afar kese xamoon yàlla bàyyi ñees a xam yàlla suñ ndokk jëseen sax dañ naan ku dul bàyyi ñees man la xamal yàlla kon fuñ ah su may mbokk seen mbokk moomu seen mbokk mii walla seen mbokk moomu Cheikh Moussa Cissé mi nga xam na moo indi coow lu rëy li lii mooy wooteem dana lii ma woote mooy tàlleeku woote Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lii ma yàlla yoor jële ko ci xeyrul anbiyaay mu wàcc su ma sang bu tedd bi nee na Sëriñ Tuubaa mooy sangam nag sëriñ Tuubaa yor mu ko fii moom laa woote te duma ma ci deltu ginnaaw te du jëm ginnaaw kalam la jëm kalam la jëm kalam la jëm lii la wax loole nag moo waral seen mbokk mi baax lool seen ànd ak ay ndongoom ñëw di leen sambal bés bii ngir ñu waxtaane diine waxtaane lan mooy ihsaan nit ñi bëgg nañ yàlla nit ñi bëgg nañ yàlla lool gëm nañu yàlla koo ne malaaka moo la am na waaye koo ne malaaka lu mel koo dees na la malaaka xam ay béjjën ku ñàng gis nga niñ niñ téye malaaka am ay laaf yu garaaw nañ ne malaaka am na hmm? kon nag malaayka nu mu mel bu la ko désigné rek nga <laughs> ah? monstre la lay désigné ak akasa monstre <laughs> gis nga parce que noonu la tëddee léebal dañ la ko léebal ay léeb mag ñi nag ñoo daan firi mag ñi ñoo daan firi loolay alxuraan moo tax mag ñi lañ daan wax naan boo jàngee alxuraan ba jeexal téere yi waroo koo firi parce que yàq la bi nag foo nga am xam-xam bii nga xam ne mooy xam-xamu tasawuf ñu koy wax xam-xamu akika muy xam-xamu maxrifatu billaahi loolee nag soo waxee ne raaf na tey xale yi mënuñu si jot wala paa yi ñoo ko doon jot te loolu di jantub démb te jamono di dox xam-xam gën a yees lépp gën a yees nga ne téere yi sax xus daa nga bëgg benn téere da nga jóg dem ka am sëñ Tuubaa mas nay bëgg benn téere dem benn waaye di ko seeti waaye ji kaw koo sàggar ñetti fan si la dem si la si la dem bi ne bind ilaa ya haadallaahu maa lam yëkkun nii wala yëkkoonu abadan li mumkin nii man sax yàlla may na ma loo xam ne may ko kenn quoi parce que téere bi la bëggoon waa ji xaw ko koo kii parce que boo mësaan bëgg téere da ngay dem neexal waa ji mais léegi téere yaa ngi bari xam-xam gars da ngay jël xam-xam yëpp def ko ci benn affaire bu tuuti dugal sa poste dox ak moom te téere ay bibliothèque la doon doon téere ay bibliothèque léegi da ngay jël benn def ko ci benn affaire bu ndaw téye ko sa poste ñoom dañoo comprendre lu quoi ne mbir mi ndekete yàlla ay mbiram loo xereñ xereñ mu nëbb lay moo tax wallaay bu ñu xeebante gis nga baat bii rek la baat bii boo déggee koy wax yeneen ti bañ na ko def leneen yee nee na boo déggee koy wax baatub laa la illallaah bu ko daw laajte leen biir yow nga dégg sa mbokk mi dafa baatub laa ilaaha illallaah ba pare ñëw ne la am na secret te nga yow nga xam ne am na secret ndax yow sëriñ ba nga topp bu dee Tuubaa la wala leneen xam nga ne indi fi julli te la mu sosee tarixa mooy laa ilaaha illallaah ñëw ñu laaj na biir gis nga fii ku fi ñëw yow chrétien nga yaa ngi may dégg indaale sa bible yow mi jóge si jàkka ji ñëwal fii indaale sa téere alquran yow mi taalib alaaji Malick ñëwal koo doon ñëwal boo amee xel kese ñëwal xulawuñu defuñu dara dañuy laante biir ñu waxtaan ci laa ilaaha illallaah ak sa këram ñu waxtaan ci sharia ak akika ah ñu waxtaan lan mooy xam yàlla lan mooy jaamu yàlla ñu waxtaan ci buñ si waxtaanee nga xam ne yow dangaa jaawale rek te mbir yi noonu la demee dangaa réer waaye bëgg nga yàlla maa leen ni seelal ci magu yàlla laaj si téeg bi maanaam laaj si bi ci xam ne bu demee jeex na mooy Cheikh Moussa Cissé ku ku ko wan ginnaaw fa amatoo jëfandukaay doo dem mooy départ vol bu mujj bi vol bu mujj bi li yaaraam mooy vol bu ñu mujj bi gis nga euh, gis nga ñii ñi toog fii kalaasu Lamine seen ngeeg Cheikh Seydina Alioune sa ñaaxar gis nga ñii ku leen wan ginnaaw kër waa kër Cheikh musa bi jamono bi ñu jëm ci yàlla yàlla sew ay mbir kon nag ginnaaw bi ñu leen siyaaree ñu ngi wax li ngeen di wax ne kaa ñu toog ñu laante biir baat bii ñu leen di wax muy baatub laa ilaha illallah mooy kalimatul ixlaas mooy kalimatul xaq mooy miftaaxul janna mooy baat bi nga xam ne mooy sellal ruuxu jaam mooy sellal xolu jaam ba jaam bi mën a jaamu yàlla maanaam mooy ixsaan boo jullee ba sa julli jeex wooral nettal bu dum ko defal lu baax lu nekk soo amul ixsaan yàlla nee na soxla mu la jëf ji seelul li koy seelal nag mooy baatub laa la illallah yéen ñëpp nangu ngeen ko de ñoom ñëpp nangu nañ ko mais dañoo seytaane moo jëloon benn tànk bi sàcc ko moo tax ñoom dañuy jàpp rek ne boo laa ilaaha illallaah laa ilaaha illallaah bu ñu jullee pare subhaanallah alhamdulilah allahu akbar mooy lu mu amul bëgguma da koy tudd mu ne waaw mooy la nga koy seere mu ne waaw mu ne ko koy xam xam la xam du wax bi kese yàlla waxul xamal waxal laa ilaaha illallaah wax ko de dugg àjjana lu mu wax faxlam annahoo laa ilaaha illaa allaahu wastaghfir li zanbik xamal laa la laa waxul wax ko dana xam ko mag ñi nag loolu lañ ñëwoon pour xamal jaam yi te su may mbokk xam laa ilaha illallah moo raxas xolu jaam laa ilaha illallah moo raxas xolu jaam moo na mag ñëpp ñu ñëwee ni Cheikh Moussa mii lañ def pour la ne Cheikh Moussa tey moo yore mbootu Cheikh Amady Tidiane dafa nakkaree wax nag moo yore mbootu sëriñ Touba mooy xalifaam mooy xalifa Cheikh Tidiane mooy xalifa Limaamu Laay billaahi wallaahi wa taalaahi yaa ngi ko wax sànq gis nga njabootu Cheikh Moussa gii kuy seeti njabootu Limaamu Laay bàyyi leen boo dee dugg sawara ñii ñoo njabootu Limaamu Laay ñii boo demee kër bàyyi laay dama laa ilaaha illallaah di ko way mu neex ko kon ana secret bi li waral laay laay xamu ko boo demee Touba na la waral ñu naan laay laay laa ci la góor yaa di rawee la waral Ibrahima Fall sëgg benn sëgg benn xamu ko boo demee Tiwaawan lu waral mu naan wax jàngu bëri na laay laay jàng nii xamuñu ko fii moo tax benn waay bu ñëwoon jógee Màkka ñëw di laaj ne moom dafa gis benn téere sëñ Touba bind ci ne euh, la nekkoon Màkka ñëw na Touba mu ñëw di ko laaj ci ñu boole koog benn sëriñ bu mag mu ne mu ne ko loolu wax daanu la loolu mënta nekk mu ne ko damaa gis sëñ Tuubaa bi euh, katabalaaw taala la nekkoon Touba màkk indi lañ ma ko Touba muy Kaaba ga mu ne Kaaba ko laay laaj anamu mais gisu ko te kilifa ko mag la si yoonu yoon wi moom lañ ko booleel mu ne ko ah sëñ Tuubaa tollu ay la doon waxee rek ay tey ñi fi nekkal sëriñ Touba ñi fi nekkal Serigne Touba mooy ñii ma nag gis nga ibaada yi bi ñuy kaas man am naa damay xaa ma suturaal leen sax xaa ma suturaal leen xaa <coughs> ma suturaal leen waaye billaahi wallaahi taala ma tey gis nga ibaada yi bu dul woon ak bu dul woon waa kër Cheikh Moussa yi ñu kër bari kenn waxatu ma gis nga ko mooy nooy mel ni suuf rek tasawuf mooy nga tas nga tas ni suuf rek tas ni suuf rek nooy nepp rek moo tax suuf moom loo ko jox rek mu jël moo tax ku jóg rek kii ñu dañoo bari njariñ wante ñoo yar jamaa lii rek la waan tey gis nga ibaadu yi bu ñu am bu ñu amul woon kii ak salafi si yeeg waxaa bi di seen xam-xam bu du woon waa kër Cheikh Moussa doy na waar ak ñoo bari xam-xam te damay wax ne damay wax ne billaahi wallaahi taalaahi rek am nañ dëgg mais looy wuti ji sëriñ looy wuti sëriñ bu dee boo demee kër sëriñ yi boo demee Touba yow imaan bi lañ lay wax yaa moom sëriñ mi ngeen bokk am jullee ko war a mu ko daal di wax waaye nekk ibaad wala nga nekk waxaa bis sa gën doy na téye sa ndey ak sa baay tane tane woo leen di moo gën moo gën fuuf moo gën fuuf fa tabarakallaahu mbir mi faw ñu xelu faw ñu xelu dafa am baat bu doy waar boo xam ne daf di diine di jaamu yàlla di lépp te nit ñi setantuñ ba te lépp ci la nekk loolu nag la seytaane sàcc góor yàlla bu ñëw moom lay yeesal loolu yonent bi woote woon treize ans muy baatub laa ilaha illallah tudd ko xam ko fas ko sa xol dëkk a tax a daan. alhamdulilah lii rek la amul leneen baatub laa ilaha illallah tudd ko xam ko mooy diine mooy islam moo di jaamu yàlla amul leneen. yàlla mel ne laa ilaha illallah. li organisation la li des la julli organisation la. woor gi yooyu yëpp ay ponk la islaam moo ko fonk ponk islaam ak islaam du benn islaam moo fonk julli lan mooy islaam islaam moo fonk woor lan mooy islaam juróomi ponk islaam yow kay yaa fonk lii paaxe bi ak ponk paaxe bi benn la ponk bi kay mooy fi ñuy téye islaam moo fonk julli moo fonk woor moo fonk loolu wa maa ko islaam islaam mooy baatub laa ilaha illallah jeex na lii la yonent yàlla Muhammad woote de lii la Adama woote de te sumay mbokk alquran moo ko wax bi ñu laajee yonent yàlla Mamadu loo woote ndax julli la dana déedéet ndax woor la mu ne déedéet la natt mburum koor la mu ne déedéet loo woote mu ne anna wa ma arsalnaaka min xabli wa ma arsalna min xablika min rasulin ilaa nuyin ilayhi annahu laa ilaha illa ana fa bu ni man day liñ ma yónni maak ñi ma jiitu woon mooy baatub laa ilaha illallah ci lañ masa jaamoo yàlla li ko doole ci aadama ba ci man yoon yonte yàlla Muhammad tuddul julli tuddul woor tuddul nattu mbarum tuddul génn maam tuddul dara baatub laa ilaha illallah wax xamul tax loolu bu tàbbiwul loo def doon ta baax ndax mooy raxas xol bi te yow yow dama ne looy wuti ji sëriñ yow muy wax ne sama sëriñ a ngi Tuubaa sama sëriñ a ngi Tiwaawan jooyu sama sëriñ xeeb Lamin Seen ci baat bi muy wax ba yaakaar ne moom man ta nekk aarifina billaahi nag seen la sant te yow kat yaa xeeb yàlla ndax moom nit la bopp la am ñaar loxo ñaari tànk te yàlla mbiram fu nekk la ko def nga xeeb ko sëriñ ba ngay wuti laaj man laaj naa la lu mu danee Lamin Seen loo fa jële loo fa wuti tuflit sa ndeer sa bàyyi loo fa wuti loo fa jële lum la tanee xanaa nit buy wuti dee wuti lu mu amul ba demee sëriñ bi dama lum la jox wax naa ko keroog ginnaaw raay mbir mi jarul muy sori sëriñ bu la boo dee ma yóbbu laa ne ko sama ruugi fu mu nekkoon ma ko jeex na nee ko sama ruugi sa waay man nga ma yóbbu àjjana mu ne waaw xam naa xam nga fa àjjana nekk nga ne waaw su ma dee yaa may tegal la waaw ma ne waa léegi dama bëgg a wan waxuma sax fi dugg di jaar mais wan ma sama ruugi rek fu mu nekk man non nag taalibe bi am ful la wan ma sama ruugi fu mu nekk kese sëriñ bu la ko wanee nag toppal moom xam na ne sa ruugi bu génnee wala nga ne ko sama ruugi bi mu dugg ci man fan la jaar wala buy génn fan lay jaar xanaa kay ku xam ne ku xamul ku xamul ruu fu muy jaar rek fu muy dugg bu génnee fu muy aw بوله نعرف الله عليك عارفواي أقسم مروق في فم أنا فم دم فم لا كن نيت أم فلة أم فايدة دفع نكوا أم خلام يا الله خلال الله ماي بود ميسي سرندي ياو لوم لا تاني لو فوتي سانتي دوخ أم lu ma laaj la kon nekk ibaaru sax dafay gën moo tax ñoom fi ñu toll nii dañuy daw ibaadu yi gis nga coow li ay sëñ Tuubaa daa daan lu wala bu tëjlu coow lu bari lii ku wax ñu ne nañ tëj si ñun lañ jëm si nag gis nga yooyu ay moyen la rek de mais ñun gis nga ba dañuy Omar Sall daa mën tey lay rek mais li muy wax yëpp génn wàll dëgg la li wax génn wàll yëpp dëgg la sa ma ne Omar Sall li muy wax génn waat yëpp dëgg la moom kay moo ñàkk ko mën moo ñaaw yaay lii la déedéet yëpp ñu dëgg lay wax ñun ñun bu taxawee ñun ñu lay saa moom li muy wax da ko mënta lay kese dafa gis ne lii moo am ci dëkk bi sëriñ looy taalibe li muy toppee sëriñ lan ñëw na joxe sa loxo naan u du wax loolay sëriñ ak taalibe Omar Sall loolu la wax un mais waxuma wasifa kuy wasifa di def ay waxuma loolu loolu tooñ la mais war nañu xool dama ne li ma bëgg a wax war nañu xool li Cheikh Moussa waxoon kan mooy sëriñ ndax sant yi la wala askan yi wala li def sëriñ ndax loolu mooy sëriñ ñoom loolu moom lépp loolu bëgg a wax xam li mu bëgg a wax xam li ñu a wax ñoom dañ ne sëriñ amul wala sëriñ mooy lan ñoom loolu la bëgg a wax mais li fi nekk nii lii du sëriñ li fi nekk ni lii du sëriñ këriñ a bëri sëriñ dangay def li Cheikh musa dekkal moo la Cheikh Moussa bi mu ñëwee bi mu ñëwee mu ne maa fi nekkal Cheikh Tidiane maa fi nekkal sëñ Touba maa fi nekkoon cam tëmbal bi réeroon cosaan feeñ na tey fii si Saalum bu ñëw defi Cheikh mu ne li ko dalee ci yonent yàlla nooyin ba ci yonent yàlla Muhammad benn baat la ñu indi woon ci lañ jàmmoon yaa muy laa ilaaha illallaah ñu ne ah Moussa mu ne dafa am secret man secret bi laay wane. ñu ne ko lu ah mu ne Serigne Touba lii la wane woon ñu ne ko mu si la wane woon ñii lii moo defoon Serigne waaye yow nga nekk doo mën a nekk sët toog fii xamoo loolu ñu la xam yàlla nga la xam yàlla amut. sëñ Tuba li mu ana ana Kaaba nga nga ne lu mënta nekk weddi na sëñ Tuba boo ñëwee ci Cheikh Lamine Sène mu walla Kaaba nga jógee màkk ñëw fi loolu gumba di ko gis boo ñëwee Cheikh Serigne Mbodj man la ko loolu mooy tasawuuf tasawuuf boobu nag nit ñi dañ koo woote turuux la dañ koo woote ci ay tur te tooguñu ci koo wax mu ne nitu Sofianke laa yar ab sikkim bi nga xam ne jàng alxuraan àlla jàngay xëy yoru kurusam di dóor déedéet da ngay am kilifa waaye ban kilifa kilifa bi yàlla tànn ndax yaa ko tànn sa bu déedéet yàlla moo koy tànn jamono bu nekk téeméeri jam at yu nekk ki yàlla tànn nag jamono ku mu nekk ku mu naqari mooy Cheikh Moussa Sène Ndiamé morom daaro vol baa ngoog de ku mu ne ci perte nga loolu la rek amul leneen waa kër Cheikh Moussa yi loolu la ñuy véhiculer Cheikh Moussa baax baax gu toll ni dene bunt kër bu nekk lañ fa tànt xoolal ndeysaan tout simplement xam na ne njëriñu jaami la yor te nit ñi dañoo dof tellement que jëfandikoo seen xel yi ba boo leen dox seen njëriñ sax ñu lay daw da ngay yor seen njëriñ di la koy jox ñu lay daw c'est grave naan ki dafa dof ki dafa réer ki dafa waye di ki dafay tëngal diine moo tax sëñ doon ñu ko wax de boo demee si masala ko jinaan mu ne fa jiilu za zamani jaahiloo xilmata sa wofin fa jiilu za zamani jaahiloo xilmata sa wofin la plupart des gens ignorent ñu ne quoi mu le soufisme fa jiilu man wax naa fa jiilu man wax naa za zamani ni fi jamono jaayiloo ñoom dañoo réere mooy jur ñu réere mu ma xam-xam ban tasawuf fa xayran ahmaloo boobu la ñu réere i jaayiloo ñoom na réere ñu bi kaw nii nekk xam-xam-xam boobu sabila mooy yoon Fakabodjila. C'est le chemin qui mène jusqu'à la sent cellule de Dieu. Leur perte est lourde. Billahi. Wallahi, yàlla xam na ko. Ndeysaan. arab yi laay bañ a wax muy bari rek. mais borom xel la ñu waxee borom xel yi. nga dem ba ci téere bi sëñ Tuubaa ne ñuy wootewul tasawuf tasawuf gisoo képp ko woote woo xam nga li ñu wax ñii dañoo réer ñii dañuy tëngal jéere sëñ Tuubaa nee na. gisoo ko xoolal ñoom xam nga fi ñu tol toll nit ñuy xoole nii nit ñi bu ñu rombee nii xam nga lu ñuy xoole nii xool xool leen xool leen yàlla yàlla yi <laughs> xool leen yàlla yàlla ñii ñii ñii dañoo dof quoi ñii dañoo wëradi xoolal ñii tëngal diina ji yàlla diina ji tegul kenn lu manul nangam nangam kurti kurti dugg fii diina du lii dañ ñuy jéppi teg ñu yéen a ñu rey xam nga lu sëñ lu sëñ Tuubaa teg ci masal ko jàlla yow mi mu si masal ko jinaan mu ne xam lu mu teg mu ne jant jant mu ne jant jant njolloon mu ne mu ne gumb di ko gis mu ne weeru am 13 jours 14 jours 15 jours aji BMPM du ko gis BMPM mooy xam ne bu timi jotee du du ko gis mu ne waaye yoon wii xoloon ndong yi mooy mooy mbelantaan yi mu ne yoon wii xoloon ndong yi man ñoo tere doon yoon wi doon yoon mu ne lii daal ko bañ

kon soo defee liy sellal jëfu jaam la sëñ Tuubaa woote woon liy sellal jëfu jaam la alaaji maag woote woon ñooñu ay docteur la ñu dañoo del dañoo donn yonent yàlla Mamadu boo ñëwee ñu raxas sa xol bi def la aarifine billaay nga xam yàlla nit nit mooy doon aarifine billaay béy du ko doon xar du ko doon golo du ko doon nit a koy doon nit fi ay la fi nekk te yàlla jëlul lu njëkkam def ko ci nit ñu njëkk bàyyi nit ñu mujj ñi te docteur yi nag bu ñu ñëwatul nu ñuy def suñu yaa ngi xaltaal Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jibril dañ koo dimba raxas xol bi ah yow ngay julli di woor gëm nga waaw léegi nag sa xol bi koy raxas loolu mooy ixsaan fa in lam takun taraahu fa innahu yaraa mooy xamal baatu laa ilaaha illallaah xamal na dara nekk fi lu yàlla loolu mooy gis yàlla soo gisul mi ngi lay gis léegi nag gars yi dañ ne ah waaw gis yàlla booy julli na nga gis yàlla boo gisul mi ngi lay gis wala nga melal ko da ngay melal yàlla nga jël benn néew bu dee teg ko teg da nga jël benn néew teg ko sa kanam ne waaw léegi néew bi mooy mooy dima def moom laay gis quoi pour sama xel dem ci yàlla ah néew bi mooy yàlla médd mooy yàlla néew nga teg nga ne pour sama xel dem ci yàlla du loolu du loolu fa in lam tëkkoon taraaxu mooy ixsaan fa innoo koo yaraa ndéem boo fi nekkul yàlla nekk yaag yàlla mënu leen fee nekk jël sa bopp yàlla nekk fi bala nga nekk fi doo gis yàlla mënoo fee nekk yàlla di fi nekk loolu la yàlla waxoon Moussa ci montagne bi demal ci montagne bi su montagne bi desee amaana gis ma moo tax عارفين بالله ان يولد تكل القران القران اي يخلى موتا سوغ مسا انا جانغ بابا ديكو تك سنتو انا دا غاي فن نوبل نا اي ليبل ليبيوي نك سو دمول تي تسوف واي با تاديك ني رك دي دي واياك دي مبمبا ياك اورغانيزي واخما لول دي بارينا جولي بي خوس وور بي خوس صلاه الفاتحه بو خوس قصيده يخص واي سكر يتغل مو جوك دارا اماتو فا سي زيرو xas yi dañoo am secret salaatul faatiha secret la werd boo gis secret la werd boo gis kullu werdin yuridul murida li qadatillahi walan yaxiida siwaahun liltimaalil jilaali aw intamaali ahmad tijaani alusuhuma min al aktaabi is kullu minhum alal aktaab gisoo ko mu ne tous les werdi même dans la rectitude il mène jusqu'à l'ancienne, que ce soit le de Cheikh Tidjane ou de Cheikh euh, euh, Abdou Khadir Djelali, car eux tous ils sont dans la rectitude et la probité. Méfie-toi d'en mépriser ou d'en critiquer un. mu ne wéeru boo jël wéeru boobu daf lay eggale ci yàlla wéeru bu mën a doon daf lay eggale ci yàlla sans déviation amul benn déviation ci kaw fekkee ne borom wéeru bi eggale ci yàlla yow nga nek ci wéeru bi suba ba ngoon ñaari at fukki at ñoy lay egg ci yàlla te yaa ngay salaatul fatiha lan moy salaatul fatiha

sëriñ Cheikh Moussa montu yu baax yow bokk kaas ñoo bokk leer man mbaxal bi ma sol surtout bàyyi ñu sama ko jox ak kan ñaari fan la ma ko jox wàcc liggéey sëñ Omar doomu Mariama Ñas mi école bala benn doomu góróob la amul Omar kan moo fekk ma toog mu ne ma Mbàkke baal la ma ne ko déet sandu ma Mbàkke ma Mbàkke la Mbàkke baal jëlal summi sama mbaxana bu giri solal ma bii dama sol ko dem gàmmu ji ñaari fan lañ ma teg woo ma ma acc liggéey Omar Cheikh Omar kan dama sol ko ma solal la ko tey cey kay laa gaye la lay laay la la ndeysaan kon montre yu baax yëpp ñoo bokk heure waaye demal bul siyaare beneen sëriñ yow da ngay sëy bul tas te su dëkkar malul dara loo fa def dama ne la sëriñ bu man sëriñ bu man day raxas xolu taalibeem eggale ko ci yàlla sëriñ ak taalibe ak tarika li ko indi du julleeg woor mën nga sa kër ndey bàyyi du ponk ngëm yi gëm yàlla ay malaakaam sëriñ ak lim lay dindil mooy imagination bi ngay am ci malaaka ak imagination bi nga am ci yàlla ba bu ñu lay gis yàlla nga yaakaar ne yàlla si biir asamaan si la nekk benn paawu la sëriñ ngay dem loolu li nag dina yàllaa nga ci kaw nga ne waaw yàllaa nga ci kaw mu ne nii la nekkee ci kaw du asamaan sii de yàlla leer la nga ne leer na mu ne loolu da lu la war a leer la nii la lay leere loolu beneen beneen mbir la loolay aarifina billaahi ndeysaan fa tabaarakallaahu fa tabaarakallaahu fa tabaarakallaahu jaa ngeen jëf jërëjëf Cheikh Moussa Cissé jërëjëf Cheikh Moussa Cissé Ndiamé borom daaru jërëjëf Mawlana Cheikhuna Cheikh Assane kon lii mooy mbir mi cooli cooli cooli cooli gars yi amul baax la waaye gis nga kuy ku kuy kuy nëbbatu du du tànte ba 10 heures kuy nëbbatu. waaw borom xam-xam bi ñu waroon ñëw nag ñu toog waxtaan. te seen Moodu moo seen Moodu. laa ilaaha illallaah mooy raxas xolu jaam jaam bi nag bu xolam rek setee loolu mooy ihsaan sëy na Ali laaj na ko yonent yàlla Muhammad moo ko ko. Mm-hmm. mu ne ko benn ma ngi ci doomu aadama bu setee léppam set bu tilimee léppam tilim. sax lañ daan jàpp seen jàpp di toj ñuy julli seen julli di toj ñuy sangu set seen sangu di toj ñu ñëw laaj ko loolu mooy ihsaan ihsaan moo la def mu rafet boo tëddee di nelaw sax rafet na ihsaan moom te am tookol bi sa tool xat eh, Mamadou yonent Yàlla Mamadou lañ ko raxasal xolam dañ ko raxas xol bi soo ko set yow nga ne kenn doo raxasal sa xol boo demee Touba sëriñ ba àddee rek nga sëkk ak moom siyaare ñëwaat amul lu la yokk loo fay def boo demee Tiwaawan laay laay jàng di ngay wax rek boo paree ñëw na gàmmu ko neex na lu fa neex lekk ak naan gi kon nel rek sa ruux la sëriñ di defar daf koy tarbiya tarxiya ko tas ko li Cheikh Chérif doon wax mais bu xamul yoon waa ak soo bàyyi mënu ko na nekk doo na nekk doomu yonent bi sallallahu alayhi wasallam am na doomu yonent dem safara nit ñi nag ñoo war a xelu ñoo war xelu am na loo xam ne nit ñi nanguñ ko seen doom yi doo jël sa doom jox ko mécanicien dix ans mënut a defar sa pono nga bàyyi ko fa doo jël sa doom jox ko tailleur dix ans mënut a nas puso nga bàyyi ko fa doo jël sa sëriñ sa doom jox ko ustaasu arab bi fukki at mënul abaja la nga bàyyi ko fa nga jël sa doom jox ko sëriñ bi ñaar fukki at mu nekk fa doomu sëriñ judd bi doomu sëriñ bu judd yaa ngeen daa def lépp mu nekk sa sëriñ sa sëriñu doom sa tam ñoo nekk sëriñ ba abadan ba kañ billaahi wallaahi wa taalaahi sama sëriñ Cheikh Moussa Lô lu dëgg ay naka amut du dëgg ay naka la yàlla yàlla amul du dëgg nit ñu la ñoo war a xelu Cheikh Moussa Lô nu ngi jéem a yee nit ñi ñu yee waaye nit ñu da leen di yee ñu lay dóor ñu <laughs> jógal yeewu kay wuti ñu lay tàgg di la dóor li li mooy mbir mi waaye alhamdulilah lu bokk niroo kon Cheikh Lamine tàllalal ah Cheikh Chérif tàllal leen Baye Barka tàllal leen seen i góor ak seen i jigéen mbir mi amul tànk ginnaaw kalam la jëm kalam la jëm téye leen xam ne dara dara dara lu ci yàqu xel bu ci damm dara lu ci yàq ndam ngeen am fii ak fu ñu jëm wasalaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakaatu ko jaa ngeen jëf jaa ngeen jëf jërë